topp leen. gàcce imaam réew mi gis nga dafa am loo xamante ne quand on que la peur doit changer de côté c'est ça qui est vrai. cest dañu jël ay innocent teg leen ci kaso yi ak ñu dund prison ak séjour carcéral ni mu mettee man dama yaakaar ni tant que ñamagoo ko defagoo stage doo xam te gis nga tant que nit ñi tiituñu ragal ne sanction bu metti bu tar mu leen di xaar dañuy continuer di def acte yu ñuy def nii. la visibilité elle est importante ñu fësal leeral loolu day tax ba keneen bëggee njublang wala nga bëgg a jublu ci xeetu guerre ak yeneen yu ni mel nga xam bu baax nan ngay taxawee et dëgg la ni sax même au delà dañu tëj leen sax seeni i photo ak seen i portrait hmm. d'accord naa ak yow dañ ko hmm. que ils doivent être responsables et peser la lourde responsabilité ci li nga xamante ne jot nañ ko fi def lépp kaso yi buñ dee tabax nañ ko yokk ñi nga xamante ne jot nañoo yàgg ci kité dese peine yu bari yi ñu yóbbu leen ci yu bees yi du dëgg yu yàgg yi nga xamante ne nit ñi sonn nañ fa te daj nañ fa lu ne ñoom ñu dugg fa ñoom xam. engrais ah, bu kutaal bi ni muy demee. bu kutaal bi waaw il faut mu am ñu fa dem. mais oui. impératif dama ni kaso yu metti yi ñuy wax ci réew mi ne ay kaso yu metti lañu ñoom il faut ñu xam. Hmm. te gis nga coowal suuf coowal foncier c'est-à-dire que dafay jafe maanaam mu am ci ab gox te mairie bi du ci laale dafay jafe ndax yow booy wuti kayitu terrain ba du ca mairie ba ngay dem ku lay defal cachet ak yeneen yi ci war. te foncier problématique la dëgg-dëgg bu am ci réew mi et depuis très longtemps c'est-à-dire ça a commencé avec le régime de Wade hmm. mais le régime du président Sall mon vieux ah ñooñu moom bravo quoi c'est-à-dire euh, euh, tomate carotte chou mais c'est la totale quoi ñoom ñoom en entier ñoom vraiment sincèrement c'est-à-dire dem nañu ba ñun même sunu géej ak sunu littoral à la limite gis nga des na tuuti accès boobu yëpp dañ koy privatiser ci loo xam ne ñoo ko moomal sunu bopp yow à quel moment tu te réveilles Pape nga ne man maa ngi nekk ci biir réew wala maa ngi nekk bitim réew damay dem jënd terrain Dakar tabax fa dafa am espace. tu n'as pas vu que tout le monde nañoo wàll ji dem ci ci côté bi ba foofu sax mu ngi commencer saturer ci loo xamante ne maanaam amul justificatif te gis nga am na ci boroomu suuf yoo xamante ne nii boo yaakaaree ne sax ni même bu la oftak keppul boo tëddee da nelaw ndax nga sa bopp. Mm. ndax dañoo dëkk ci Sénégal goo xam ne imam on a nos réalités. Ah ah ah on a nos réalités sociales on a nos réalités spirituelles. yu fi nekk lan moo tax libuy balaa ngaa laal seen suuf waaj waajaat dangay tëdd ba guddi rek seen ku la xët doo comprendre. réel da doo xam li lay dal lan la c'est-à-dire que fit gi nekk ci ñoom ci am sañ-sañu jëlu suuf ak di ne alalu doomu aadama yi loolu dafa war a jeex ci réew mi. Ah te nag le travail qu'ils sont en train de faire man tout ce que je leur demande que ça soit OFNAC et tous les corps de contrôle mooy na nañu dem jusqu'au bout et la justice aussi n'a qu'à montrer à titre d'exemple ñi nga xamante ne ay luubalkat lañu sàcc nañu am nañu fit au faux et usage faux moom ma nga fépp te foofu mu dugg rek xam nga ne foofu vérité mënu faa feeñ dañ waxante dëgg ce que le l'imam dit mais comment tu peux être maire aujourd'hui nga bëgg dugg ci benn niveau bi mais yow dama lay bu ñu waxantee dëgg ministre rek waroo mën a dund ci benn level bi. benn bi. waaw mais normalement yow bu ñu la xasee ba jox poste de responsabilité waroo grossir si danga war a jeex. Hmm. boo amee job ndax yow war ngaa xalaat alalu askan waa ngay gérer et que tu dois rendre compte. Mm. mais on est dans un pays boo xamante ne nii on ne par pas compte même si y a des audits. c'est-à-dire résultat audition yooyu day disparaître. néng hmm. kenn xamul kii a fait et à quel moment et moi ce que je ne peux pas supporter et encore moins pardonner régime bi fi passé c'est vraiment ce qui s'est passé avec le scandale du force covid foofu moom nga fa gisee loo xam ni mënoo ko justifier pendant que les Sénégalais avant Covid sonnoon nanu ba seen làmmiñ di lang ñu dugg ci période Covid seen situation gën a métti gën a difficile parce que heure yi restreindre nañ ko ci waxtu bi ngay génn ba ngay dugg mm-hmm. ñu ne dañuy séddale y yaay akub ceeb ak bu guddi jotee ku ci jot a génn sa fàq di jëndi cere ñu dóor la baa ñu pompé loola ba ngay bëgg a et pendant sa temps ah ñu jël xaalis bi imam ah di ko séddoo c'est di signé ay contrat yu nu tegul fenn c'est di jël ay millions ak i milliards di ko détourner sur le dos des sénégalais ah imam wallahi daf leen photo loolu baax na de waaye ñii dañoo war a ñam le fait nga nekk cim réew jublang jublang lan la war a mën a jur man loolu laa gëm. Mm-hmm. il va falloir que toutes ces personnalités là. yi nga xam ne sanction exemplaire regarde le euh, doguma la regarde le cas de ngi koy tudd léegi. waaw ak euh, ak euh, le le maire de Tivaouane la Diop Sy Diop Sy boo ko gisee ci wetu xalifa bi muy jàpp loxo bi di koy koy nga ni kii kon ku gëm yàlla la. Mm-hmm. am na loo xamante ni sax boo koy def nga ruus sax. fi ñu lay dàkkantale wala fi suñ ne Jóob ne si fu ñu ko xamee Tiwaawan ñu fal ko meeru Tiwaawan tey ñu lay dugal ci yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon Cheikh Tidiane le député la Cheikh Cheikh Cheikh Seck la xuma mm-hmm. ku ñëw assemblée mu saaga xas wax lu mel ne xeme saaga la traité fi Ousmane Sonko n'importe quoi ah, ndekete yow li nga doon ah. traité Diomaye ak Ousmane Sonko dafa am lu nekkoon ci suuf sa sàcc nga doon nëbbu. dana ak su njublal moo tax ñu naan motion de censure. Hmm. doo dégg ñu voté ko. Ah. assemblée li fa xew ci biir. assemblée ku fay motion nañu motion. kopparu assemblée. ma ni ñu naan motion de censure que ça soit nga naan xaw ma euh, ni koy tuddee ti président groupe parlementaire nga. wala loo mënti doon nañu dem ñu dugal loi bi ñu xool danañ weeru ni géej gi. Hmm. géej gi ah. Tamba nag laa wax. bu maa la wax li Ousmane. du du ay affaire animation wala leneen. li nekk biir assemblée. tuuti na ci li président Ousmane Sonko waxoon ni am na per diem bu ñuy jot du ñu fay impôt. rapport OFNAC bi ñëw na ci. loolu ñeme ngaa def di def ay ay ay ñeme nga taxaw Ousmane Sonko taxaw nga naan damay motion. Mm, mm, mm. <laughs> non nañu xalaat bu baax a baax. rapport bi da leen épinglé bu baax ngoone dina ci ñëw. waaye am na yeneen yu xew ci biir waxuma réparation oto yeeg yooyu. Ah. mais nañ nañ dawal nañ dawal am na pàccoo yoo xamante ni opposition bi daan ñu daawuñ ko yëpp te député yi doon ko def ci suuf c'est-à-dire kon on comprend pourquoi ñun ñun fépp metti quoi réew mi fépp ñun li ñu waroon li ñu waroon a développé gaañ wanaasu nañ ko justement laa bëggoon wax benn groupe nit rek ñoo fi nekk muy tourné ci ñoom ñooy nekk député ñooy nekk ministre ñooy nekk maire ñooy nekk direct directeur généraux c'est-à-dire que munoo comprendre et puis maanaam ñoom <laughs> niñ doon dundee sax moo moo salte parce que yow sax man nga comprendre ne <laughs> waa ñun groupe lañu d'accord mami day sàcc waaye kay danda bu bañ a sàcc kay tëb ci ci Pape Ousmane sàcc bàyyi ngoone waaye ñëppay sàccandoo te ñun ñëppay àndandoo suturaalante doo c'est-à-dire que euh, ni ngi leen di gisee ñu booloo noonu en réalité ñoo yëy parce qu'ils ont compris que ah cette chaîne là s'il y a un seul maillon qui se mais ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ils sont foutus comment tu peux expliquer que dans un pays que mu am côté boo xam ne imam ils sont extrêmement pauvres ah et ah di wax ah naan pauvreté amul ci dëkk bi pendant que d'autres roulent avec des voitures qui coûtent excessivement cher mais Dakar boo génnee nii oto yi daw fii dawul sax ci dëkk yu bëri alal yi jamais en Arabie Saoudite ñu koy gis en cinq millions ak parking yi ñu am te parking ñu am quatre-vingt-cinq millions nga tabax kër gas ko def souterrain dancing feccukaay ci biir. ah koof yi ci ah. biir kër xam nga xaw ma Paa Assane moo ko doon wax. Ah, xaw ma kat naan nañ dem ci biir kër yi ñu dajji miir yi dajji kër yi. non ah, loo yaakaarul ne ci réew mi nit am na sañ-sañ am na sañ-sañ ko raw. danañ ko génne de. <laughs> Ah, avec Ousmane na ñu ko soxla de. avec Ousmane danañ ko génne. incha allah am na bu ñoom fu ñu mënti jaar dinañ ko génne ko bu gis nga bu nu récupéré la paate jël ak la sàmba jël ku ne ñu roppati la nga jël ak la nga ci sa kër la nga yor sa banque ba jaay sa lu nga jot a am yépp yow bu boobaa séddale ko ñi nga xam ne dañ koo soxla wóor na yàlla ni de vie bi dina xaw a tane tuuti nga xam ne ñii mhm. c'est-à-dire danoo ngaf te bu ñuy lekk duñu doyal musuma gis ñu xiifee nii ma. ma wax la waxu Paar furuux ala fifi. ah yéen kay dañoo fifi na ala fifi fifi nanu. Ah, yërëmuñ ah. euh, yërëmuñ askan bi yërëmuñ askan bi yërëmuñ leen yërëmuñ leen amuñu yërmande sax loolu lañ leen njëkk a jàngal il faut être sadique soog a mën politique politique. ah oui ah, lañ leen di wax.